صفبت لي رب البرية البدن أذا تغاد من خلوني بددا صفبت لي رب البرية البدن أذا تغاد من خلوني بددا صفبت لي رب البرية البدن أذا تغاد من خلوني بددا te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy fopp ba dem Touba nga war a dallu te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy ba dem Touba nga war a dallu te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy fop ba dem Touba nga war a dallu tey jii ma wax leen li ma nar ci màggal bu leen ma dog nag déglu leen ma yeggal woo leen njaboot gi tañu maase déglu góor ak jigéen bu kenn wax nañu teewlu 18 safar 18 safar Cheikh Bamba moo ko woote wuy juul ba alku yaa koy moo tax ma naa leen yéen njaboot gi bale leen kër gi na seet lu yàqu yi defar leen bis bi bu jub na nu yeesal néegi taal fa lu neex te génn jox ko gan yi lal na nooy dara bi set te bun ay sànq kët ngir yooyu bañ di màtte na vente looyu tàkk te mu am àpp kilim yi taal ko fu nekk uppu ku ñàkk yi nag na nga jënd wantaay jox ko gan yi ñuy upp fu nekk lay jaay ëtt ba set wana yi set am ndox am saabu it bis bee ko laaj na lépp dox bu ñetti fan dese ci màggal nañu door di togg ñam yi jox ko gan yi ñuy dóor bu bis bi yegg na nga berndeel ñëpp gan ña ca biir ak gan ña toog di yopp sol leen lu set xëñ leen lu neex te belli bun def ku ñëw ñu jóg taxaw di xulli nan teel a jóg taal nekk bi su màggal na ñëpp jóg gaaw leen bu kenn yàggal na kaas yi seet rafet ñu teg ko ci palaat lépp na ñëw bu dara des lu ñuy xalaat bu ndekk nuy xulli taxaw ni nga moo nan génn dem tanaa li na rees ak jàmm buñ fa jógee nan dem tàllal basang ya ku mën a jàng ñëw ñu tas kaamil ya lim buñ fa am ñu ñaata def ko addiya jébbal ko seex bamba kaman cëmbër yaa soxna yi sol leen lu dugge ko waañ teel leen a taal ceeb bi na te bu mu xooñ taal leen bu xonq togg leen i ceeb bu weex na yëpp am ku yegg si tànn bu neex kaani salaat tamaate farce saucisson yii na ci am napp yi ànd ak torson kaani salaat tamaate farce saucisson yii na ci am napp yi ànd ak torson kaani salaat tamaate farce saucisson yii na ci am napp yi ànd ak torson bun añee ba noppi naan attaaya njarlu wa yëf tayër kurusey taaya gon nga ñu génn jàng ay xasiida te berne waat ñun berne mooy sunu aada réer bi ñu misi daa di joñ sunuy ganaar te bu mu lewet bu mu weqonam bu mu xeeñ saxaar réer bi ñu misi daa di joñ sunuy ganaar te bu mu lewet bu mu weqonam bu mu xeeñ saxaar te bu ñu réeree rek ñu dem siyaare wuti jumaa ja gis ko xol yi maare ku mën a dem xabru yo fa yàgg ku ko mënul foo màggaleet mu màgg jarul di xat-xatloo ba fa yee fitna footoo nga ñaanta dem si ne mat ngi dénk gan ñi fii màggal si ñu teey te dal ngir Bàmba lañ fi wuyu si Sëriñ Tuuba Xaadim Rasuul Sëriñ Tuuba Xaadim Rasuul bëggu fi tux bëggu fi naan ay sàngara bëggu fi mooy nan moytu caaxaan du dara soxna yi seetlu leen te sol fa col gu yiw xew xaddi mi wute naa ak yeneen xew yéen gan yi na ngeen ci boole am xel dina la noppal noppalit fa ngay dal loo xam ni bii amu fa bul ko laajte di leen sonal si suma nag daa yeete ku ñëw ci kër ñu génn néega jox la ko di la teral loo soxna nit ñu indi ko lun am di def ca bis ba ngir teral la ngay dem di laaj paas loolu gàtt xel la boo mënta indi sax nga jéem wut paasu année le tour moo gën nga dem ñiy kaas te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy fa ba dem Touba nga war a dallu te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy fa dem Touba nga war a dallu te sàcc yi màggal si nañ ma déglu kuy fa dem Touba nga war a dallu dugg ci kër ñu la néeg yaatal la di la tëral ngay sàcc ñàkk fu la dugg ci kër ñu jox la néeg yaatal la di la tëral ngay sàcc ñàkk fu la sëfoor yi daw leen ndànk dal ndànk ku sonn noppalul bu leen nu sànk yal na nu yàlla may ñu tal ko fekke ko luñ fa jëf yàlla buur bi nangu ko képp ku màggal bis bi yàlla na màgg lu mu bëgg am ko lu mu door mu yegg Serigne Mountakha Serigne Mountakha sëriñ Muntaxa taxa sëriñ Muntaxa taxa Muntaxa Mbàkke yàlla na yàgg woote ñu yàgg ko wuy ji ñun ci moom la ñu féete sëriñ Muntaxa yàlla na yàgg woote ñu yàgg ko wuy ñun ci moom la ñu féete amiina amiina bi jaahi Bamba kay magi maam Ceerno ak sëriñ Masamba amiina amiina bi jaahi Bamba kay magi maam Ceerno ak Sëriñ Masamba sahabta li rabbal bariyatil badan azab abad man qalawni خلوني بدنا سعات لي رب البرية البدن أزاد مظلوم خلوني بدنا سعات لي رب البرية البدن أزاد